ngeen déglu yéen ñépp ñu ngi leen di ñaan loolu kenn ku nekk na jàng fatiha bu sell ak benn salaatu ala nabi lu yombul la li yombul moo di am kilifa mu mën laa wax nga jëriñu ca wax loolu ci jamono yombul kon ku ko am da nga cay profité ci jamono bi nga xam ni tabaarakallaahu ni ko yàlla binde binde na ko jamono jaxasoo na jamono wax la jamono tooñ la jamono def lu la neex la ba ku ciy dund sax doo deñ di nekk ci ay jaaxle kon léeg-léeg am kilifa boo xam ni moom yàlla bind na ko teey te du mu di la wax fi ngay teg sa loolu chance la jamono bu doy waar ndax damay wax ni jamono la boo xam ni nit ñi ñu ngi ci arme waaye am na ñoo xam ne ñu ngi terroriser ci wax lu neex nit wax liberté d'expression li ngay wax amoo ci dara fu la neex nga koy waxee lu la neex kilifa diine amatul kilifa addina amatul parce que kilifa góor tudd am na ñu taxaw di ko saaga jamono boobu léeg-léeg nga am ku la ni fii ngay teg sa tànk baax na ndax nga xamante ni ngay doxe loolu moo nu fi dajale moo tax sunu yaayu daara xajatu aram jéen ak ñi mu àndal yónni ma ci moom ñaan ko waxtaan wi mu tontu ma ni ma nee ko may naa leen mu yónneeti ma ci moom ni na ma jox dat ma ñëw wax ko ko mu jox ma dat ma jox ko mu yónneeti ma ci moom ni na ma jox teem ma ñëw wax ko ko mu jox ma teem ma dem jox ko ba bés bi ñëw tey nu war ko déglu mu wax nu li mu bëgg li am ja solo ci ñun mooy moom li mu bëgg suñu kilifa la te wóolu nañu kon li mu bëgg rek moo am solo bu koy wax rek bu ñu ko def duñu ko digal duñu ko sax duñ ko tracé moom moo nuy digal moo nuy sax moo nuy tracé su ko defee nu góorgóorlu sa kilifa de wax ak yow la koy sawarloo mooy mu yëg ni la mu waxtaane la nga ca am ci défaut yaa ngi koy combattre mooy dañ la nga ca war a appliquer ci ndigal yaa ngi koy jël ci sa bopp waaye bu fekkee ni ah suñ cheikh da tey waxtaane mu doy na waa moom daal yàlla moo ko may rek mu jeex mais fekk junni at moom muy yëg nu toog ci suuf rek te kuy yëg kuy yëg topp la nga ma àndal waaye kii yéeg ki toog di leen nekk rek boo ñëwaatee fekk ko fa du am njëriñ ñu nekk nag ci jamono boo xam ne bi soxla ku mel na moom ndax itam tabaarakallaahu danaay wax ni li ma jaaxal ci moom moo di kenn mënu koo nëxal waaw mënoo koo wax a mu nëx lu problème réy réy loo ko indil mun tekk ba xalaat ca mënoo koy jey parce que loo ko wax ba def ni dana ko kontaan la moom mu wax la lu ko sabal nga xam ne kii la mu lay la nga koy wax ñor la ñaareel bi nu xam ci moom benn jëkk bu ñu yéem ku maam yi ci làmmiñam la boo toggee moom ba tudd nit yaa def ca waxtaan waaye génn nit xamul tudd gor fu mu nekk loolu nag boo amee kilifaam bu melo ko bu jamono dee yëngutu di jaxasoo ku nekk ak na ngay xalaatee ku nekk ak sa wax surtout réew yu mel ne Sénégal nga xam ne suñu Babacar Sy radiyallahu anhu dafa daan wax ni gouverneur décopé da ko daan wax ni ko yërëm naa la mu ne ko am ah, mu ne ko ku jiite ñu seen yor tuuti te seen gémmiñ gudd daa sànq koo xam ne yóoram dafa tuuti gémmiñam gudd maanaam fu mu toll nit ñi wax te loolu amu ci dara kooku ku nekk ak moom da ngay sonn su ko defee kon nag léeg-léeg ñuy soxla woo mu ñëw ci suñu biir wax nu fi ñuy teg suñu tànk ci ni mu ko xalaate ak ni mu ko bëgg su ko defee ñu doxale ko noonu di waxtaan woo xam ni ñun ñëpp dañ cee bëgg a jëriñoo waxtaan ak boo ci bëggee jëriñoo da ngay joxe sa nopp ak sa xol te boo fa jigee nga nga jëfe ko su ko defee kon tabarakallah ñu ngi sant ñëpp balaa ñu ko jox kàddu gi nag am na ñaar ñoo xam ni xaajatu aram dis ni ñee na leen pour ñu war a wax ci turam di xaaji Mansour Mbaye waxtaan ak yàlla nañu ma jéggal rek ma tëral leen ak kenn bi déglu muy seet ñu xam ne yéene ak jaaxaan moo doon ñu tudde ñëpp waaye kàddu dafa xaw a day waar ñu ngi gërëm ñi amal matériel bi yëpp ñoo xam ci wàllu ne war na mën a xam naa la am na ñoo xam ne foo ko moom aar ne war na mën a ko xam ne ñoo ko jox muy dund ñu rendi ko man ci jëriñoo maanaam ñu ko jëlee ay ñax ñooñu bokk na ci ku ñuy wax sàmm yoroo tukka seen baax taala baax ak sunu ñaan ak bu la seen ñaan ak ñuy wax lool faal moo dafa mel na daje jàmm moo nu fi indi yal na yàlla yàggal jàmm te itam duñu ko man def lu dul ñu delloo ko ñu ko moom ndax lu nekk am na boroom sunu kilifa diine yi ci réew mi ñoo ko moom ña ca jiitu mooy Cheikh El Hadj Aziz Dabakh ak Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ak seen bokki daara yi ñu bokkal ndono ñoo ko moom mu mel na kon nag daje jàmm lay mën a nekk ndax Cheikh El Hadj Malick radiallahu taala dafa waxoon ni sama jàkk ci ndakaaru sama jàkk ca ndar sama jàkk ca Tiwaawan feek mu di fi nekk ku toroxati yaa toroxal sa imaamu Malik dafa am ku ko laaj ni ko lu tax yonent bi wax ni yàlla suturaal na xeetam ak li xew mu ni ko yàlla suturaal ñu xaw wi waaw yàlla suturaal na waaye ñoom ñu xaw wi ba tax nag ku yaa xawwi sa bopp waaw lu ma tax xàmme la ba tax na kon nag li fi nekkoon jógu fi te du fi jóg ci kàttanu yàlla mu mel na itam rek daairatul xayri wal baraka ñoo woote ni ki ko sëriñ Abdul Aziz Dabakh waxe xaajatu aram yónni ko ci man nu d'accord ci bés bi wax na ko yépp tabarkalla euh, ndakaaru nag ñépp a fi am cër wante am na góor gu ñoo wax sëriñ Babacar am na fi cër waaw damay wax ni doomu ndar yépp moo ci gëna a léboo yépp moo ci gën a doomu ndare waaw ndax rekk wólla rek jaxasoo mu mel ni kon nag yi yépp ci biir liggéey yooyu rekk la dugg ku nekk dina ci bay làccam kemtalaayu li yàlla dogal nga dund ko ci kaw suuf boo demee ñeneen bay seen làcc noonu rek la ba tax na kon nag yal na yàgg am jigéen ñi ko sos yal na yàlla yokk seen kattan yokk seen barke tabarkalla te di leen defal sutura ndax Cheikh El Hadj Malick radiallahu taala dafa waxoon ni yéen a ngi jëm ci jamono nee na ñett doy na ci sëkk nee na moo di istigfaar nee na fa toll del baalu yàlla ndax julli sax boo ko defatee bàkkaar lay doon nee na foo toll dil julli ci yonent bi ndax lëndëm dana bare ba làmp dootu ko mën a leeral lu dul leeru yonent bi nee na ngay ñaan sutura ndax gor gu nekk junni saay-saay dana ko wër pour xaw li si waaw ku ni bu boobaa na ngeen saxo ñett yii mu mel ni kon yépp ci seen baat la dellu bi loolu paase ndimbal bi tax ak yaatal bi tax mu am mi ngi jóge ci président de la république te ñi mu yabal ñu ngi toog mat nañu ndaw sëkk waaw ndax bi Sëriñ Lamine Diop di laata ñëw ànd ak Talla Cissé ñoom ñaar ñépp ñuy mbokk di wëllëre te jóge ci président fekk nañ fi Alioune Diagne Kumba Aïta waaw mu mel ni fekk nañ ci Alioune Diagne ak Alioune Diagne Alioune wa Alioune waaw Ali wa Ali tabarkalla yal fekk nañ fi itam sunu mbokki bopp yi mu di du jóg di ndey ji réew tabarkalla tabarkalla fekk nañ fi lamin Lamine Diack tabarkalla tabarkalla ak ñi ñu àndal tabarkalla la kenn ku ci ne sa waajur lu nekk la ci réew mi waaye lu nekk la it ci diine ji wax dëgg yooyu yépp mi ngi ci te ay kilifa lañu am na ñu soxla sëriñ lemin Jóob a ngi war a dellu ndax gan gu jóge Koweït waaye terewul mu sàcc ñëw jaar si loolu yépp ku ko yëgul doo yëg te nee ñu ku xeeb sa buur sa dundin ñaaw waaw sunu maam jaanu ko daan wax xaaji Saydu Nóor Taal nee na ku xeeb sa buur sa dundin ñaaw ma ni ko am na lu ci sama turandoo wax de mu ni ma lan la ma ni ko nee na almashixatu la budda laha min siyaasatil muluk mu ni nañ ko bind nañ ko bind waaw cheikh nee na nitu diine nee na bu jaxasoo ak nitu àdduna nee yépp dox dafa am nu koy defe nag du ñépp ko mën waaye bi loolu amee ba noppit nu ngi fekk sang sang boo xam ni piir sang la ci kër gi ndax deretu Cheikh El Hadj Omar la muy gouverneur bi fi ne di Ahmed Tijani